dëgëranteel ak moom bopp fum la bëgg a jëmloo te gënu ci yow bu fa nangoo jëm boole ci nag muuñ am kanam gu leer te du la tax ñàkk fayda ndax ginnaaw guddi goo gis guddi gu lëndëm goo gis ku ne ak fajar topp na ca fajar dina indi ak leer koo xam ne day tege ci kaw àdduna eh, bi ñëpp di ko gis bul toog naan man daal dama ñàkk sens wala dama néew sens déedéet bul wax lool te ñu bari dañ koy am man au oh, ma sens si mel noonu nee na waaye waxal ne rek lii la yàlla dogal ci man te lii la ma sédd su boobaa yàlla ci boppam moo lay taxawul boppam soo gëmee ne moo dogal te lii la la dogalal boo ko ñaanee mën na laa yokkal mën na laa féete feneen foo foogul woon ku la fa féete itam kon loolu mooy li xikma bindi woon tey àdduna doo ko topp ci léppam am na yenn yum la bëgg a def loo àdduna see ko waral àdduna tëddee noonu bu ko nangu bu àddina tëddee nim tëdde yow nga li la war suñ bokkul rek juyool ak moom suñ bokkee nag fëlaa alhamdu loolu mooy tawfiq kon loolu xikma bi indi woon bu ñu fàtte nag benn yoon di wax allahumma salli wa sallim ala sayidina wa maulana muhammadin nabil ummi wa ala wa ashabihi ajmain ñoo ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamualeykum wa rahmatullah